boole ko ak allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim téeméer incha allahu rabbi dootul ñàkk dépense bismillahi rahmaani rahim ñetti téeméer yoon waaw ñetti téeméer yoon bu jant bi jóg boole ko téeméer allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim waaw moom dépense dootu la jege dootu la jafe déedéet dootu la jafe bu ma gars yi woo di ma ko laaj de mhm. euh, numéro Moustapha mu ngi noonu ci suuf écran bi ngeen mën a jàkkaarloo ak moom jël ko numéro fii numéro fii ci Sénégal mais surtout ñi nga xamante ni euh, ñoom ñoo nekk France te bëgg ko jot mhm. képp koo xamante ne nag da nga nekk ci pays anglophone yi euh, wala beneen pays boo xamante ne du France da ngay def indicatif bi ba noppi 0033 bi nga dindi 0 bi taqaloog bi rek daal di continuer 600 nangam donc euh, mi ngi noonu ñu indil leen ko tey jii mu fas yéene waxtaan ak ñu yéen ci lépp loo xamante ni dafa jëm ci ay secret li ñu mën a mën a wax ci euh, bisimilah rahmaani rahim bari na bari na buñ fi ko fa toppoon hmm. maanaam fii ba suba ci waxtu wi duñ fi jóge ci ay njëriñam waaw ci ay njëriñam bismillahi rahmaani rahim ngeen di ci def ay jël ay buntu yoo xamante ne da ngeen ci defal ay doomu aadama ñaar jaam bi ki nga xamante ne nii tey jii ma nga jëm ci ku mu ragal ku mu ragal waaw wala ñu convoqué ko waaw na def bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim juróom fukki yoon cinquante fois bu yeggee kooku day mel ni mu xar hmm? waaw bu yeggee kooku day mel ni am xar fi ne fi ne dinaa ko may sama mbokk sëriñ si waaw sëriñ seeg ñëpp kay waaw douze mille bas bismillahi rahmaani rahim nga bind ko douze mille fois wut siwo xooj ko ci gas ba mu xóot suul ko fukki fan ak ñaar sulli ko boo ko sullee nga sangoo ko nga ngay sangu maanaam bis bu ne nga sangu ci ba mu mat fukki fan ak ñaar heure boo sangoo ba pare nga toog wér di bismillahi rahmaani rahim ba mu mat douze mille Adja Mbaye amul aajo ju mu mënta faj yaa ngi yaa ngi defaral sa mbokki sëriñ si de samay xarit lañ dama bëgg adduna si ñëpp am jàmm man sëriñ si nga xamante ne ñi ngi ci yoon tege ci yoon mm. ñoo ñee samay xarit lañ waaye képp koo xamante ne dugg nga ci te bokkoo ci bokku ma ak yow lenn donc 12000 bisimilah 12000 bisimilahi rahmaani rahim. nga bind ko def ko siwo bu gas ko suul. gas ko suul ba koy bind jamb ko. jamb ko gas ba mu nga suul ko fukki fan ak ñaar. Mm-hmm. soo ko sulee nga sangoo ko fukki fan ak ñaar. bis bu mm-hmm. ne boo sangoo nga wér fukki junni ak ñaar ci bisimilahi rahmaani rahim amul aajo ju mënta faj ku tëju ba mu mënta am dara bu ko sangoo day deñ ku ñu liggéey bu ko sangoo day deñ aajo ju mu mën a doon day faju moom ci bismillahi rahmaani rahim mu doon lu am solo loo xamante ni euh, affaire à suivre la euh, ni ma leen ko waxee rek euh, Seydina Mouhamed Moustapha Samb moom la ñu dalal tey ci seen émission di waxtaan ak moom mu nekk koo xamante ni nag defi rek la bëgg ndax li ko waral mooy dañu wax ne ñaan yàqu na ba kenn gëmatul kenn mm-hmm. waaye nag règle boo gis am na exception te foo dem di nga fa fekk ñu baax fekk fa ñu safaanoo même animation bi ñuy def sax amaana mbayeng daf koy def te moomu ko kaka moom mi ngi toog donc lu ci nekk rek nañ ko jaarale yoon du ñàkk nag ñu dajeeg koo xamante ni ñaankat la ku mel ni moom ñu indil ko mbokk téléspectateurs yi ndax li ñuy yitteel du dara lu dul aajo yi nga xamante ni doomu aadama yi ñu ngi koy jànkoonteel mu faju loolu moo tax ñu indil leen ko bisimilah rahmaani rahim ak istifaar maanaam maanaam astafurlah astafurlah dafa garaaw nag mooy benn benn médicament boo xam ni. Uh-huh. suñu borom moo bind notice bi wax li muy jariñ moom astaghfirullah waaw fa xultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yusilu sama aleykum midraaran wa mm-hmm. yumditkum bi amwaalin wa banina wa yaj'al lakum jannatan wa yaj'al lakum anhaaran mm-hmm. yonent bi am na ku ñëw ci moom ni ko man de dama dama dama amul doom uh-huh. mu ni ko xalee ko bi istighfar kii ni ko damaa bëgg xaalis mu ni ko xalee ko bi istighfar ay ay ay ay bakkaar mu ne ko ka bi istixfaar saxaaba bi laaj ko ni ko waaw ay ya rasulillahi lu tax yow ñu ñëw ñëpp ku la laaj rek nga tegtal ko istixfaar mu ne ko mooy benn médicament bi nga xamante ni hmm. universel la lépp lay faj. bawul dara xam nga astaxfirullah ndax yow. foofu ba fooro fooro ma ci de. waaw dama ko bëgg a jàngal jaam ñi. a jàngal jaam ñi. jaam ñi waaw. mais kon Moustapha yow tey facilité rek nga indi. facilité waaw yombalal nit ñi kenn ku ci nekk. jëriñu waaw kenn ku ci ne ndax xam nga xam nga fi boo ñëwee tank ci kaasum ndox du tere géej gaa nga fa mhm. dama bëgg dimbali jaam yi mais est-ce du li nga nammul dara tax fi mu nekk ni lu la neex mayee ko fi mu du caa génn sax duma lu ma nammul dara waaye xam-xam boo ko joxul nit ñi jox ko suuf si te muy dëgg jaam ñi nga koy jox boo leen ko joxul rek jox ko suuf si kon jox leen mbootu astaxfirullah mhm. mooy ñaar boo waxee rek ñu ne 1947 1947 mooy xaddadu nafsi bi mooy lim bi mhm. mais lan moo tax mu nekk 1947 boo jëlee allahu 66 mhm. la ahadu 13 kaafi 111 razaax 308 fatah 489 xanniyu 960 boo boolee mooy nekk 1947 juróom-benni tur yooyu moo composé astaghfirullah mhm. calculeel allahu 66 la mhm. ahadu 13 la kaafi 111 fatahu 489 razaax 308 xanniyu 960 boo ko boolee mu nekk neuf cent mille neuf cent quarante sept mhm. bala may yegg astaxfirullah alif gi mooy anwaar mhm. képp kuy def astaxfirullah day amul leer mhm. siin gi mooy sattaar képp ku koy def sunu borom dina lu suturaal suturaal taa gi mooy taw bëtu taa tombe gi mooy tuub xayin gi mooy xofraan jéggal kii tuub ñu jéggal ko faa gi mooy mooy mooy mooy fatxu da lay indil fatxu da ngay ubbeeku. Mhm. raa gi mooy raxma mooy astaxfirullah. léegi boo xoolee juróom-benni tur yooyu. Mhm. allahu ahadu. Mhm. fataahu razaahu xanniyu. kaafi. daa am noo koy liggéeyee. noo xamante ni boo ko dee def bala muy mat ñeent fukki guddi nga am xaalis. bala moo mat ñeent fukki guddi nga am xaalis. soo paree jox ko jox ko sama réalisatrice bi. xaalis rek la bëgg xaar ñu dimbali ki ci ligne bi rapidement euh, une minute rek mbokk allo.